yaakaar ni cérémonie bi yàggul cérémonie 10 minutes la euh, li ñuy réunir tey tamit euh, moom lañ ñëwoon doon leen ko expliquer ndax euh, centenaire Gibraltar la ñu bëgg a terrain de football bi may rappeler tamit ni boo gisee mairie bi mën koo defar ma koy rappeler waat terrain municipal la je chaque jour ma wax ko seen bu leen foog quartier ko moom terrain bi titre foncier bi commune de la Médina moo ci nekk mais yéenay bénéficiaires yi yéen yéen a fa dëkk kon yéen a koy aar yéen nañu ko dénkaat n'est-ce pas donc euh, ñu amoon mébét boobu léegi doon ko liggéey Jeanne nag sonn na ci loolu wut na fu ne partenaire ndeysaan dégg na ci lu nekk tamit léeg-léeg mu xaw a jaxasoo sax mu defalaat ko ni ko demal rek dem na ba ndey gerte man ko non fii ku jiite moom métti boo jiitee lu nekk ngay dégg nit ñi foo fekk ñu positif rek am na ñu ñu ñu négatif donc moo taxoon euh, ma woon ko tey boobu léegi ñu ngi wut ay pexe wante demoon nañu bu doon wut sax ay crédit pour lépp léeg-léeg ñu luye ko di fay wante yàlla dafa ñëw ak ay xéewalam ndaxte bi ma demandé fu ne maire de di Soham El Wardini ñëw na ci jàppale bi ndax terrain bi du ñu yem ci terrain de football bi genre dina ci dugg bu jëlee parole yaakaar naa terrain football bi dañ defar terrain basket bi pétanque ak tamit def poste de sécurité ak fu joueurs yi di regroupement yi yooyu yëpp xalaat nañu tabax ko fa bi ñu ko xaymaa toll na ci 300 millions. léegi ville de Dakar nangu nañu jox 200 millions commune de Médina teg na ci 100 millions muy 300 millions donc ASC bi baal nañ ko ko gestion bi lañ ko dénk ñun soxlawuñ ci dara.

dina ko ko delloo may Médina terrain bi may mairie bi terrain bi yaakaar naa ni may ñaan nag noonu bu ko kenn jéem a gàllankoor parce que am na ba noppi léegi terrain yooyu yëpp amul benn buti ciy privé yëpp la ñuy ubbil pour waa Médina wuteel ko organisation ba nit ñëpp mën cee football def ci liñ ci bëgg a def te kenn du xëccoo donc yaakaar naa ne yàlla moo ñëw ak i xéewalam donc terrain déggoo Jeux olympiques yi nangu na koo defar